asalaamaaleykum mbokk yi Sénégal ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ñu am mbégte dalal fii kii di Khalifa Abdoul Aziz mbay Abdoul Aziz Mbaye consultant la en administration et administrateur de société il est en même temps diplômé d'économie ci université yu bëri foofu ca France euh, ci yooyu mu ngi amee tamit diplôme ci à l'université de Paris dis Nanterre nga nekk tamit un diplômé à l'université de Paris 9 Dauphine am tamit diplôme troisième cycle de sciences politiques option développement et coopération à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne nga nekkit nit boo xam ne Sénégal tamit intéressé na la looloo tax nga taxawal mouvement nga tuddee tuddee ko Futur Sen euh, Futur Sen am nañ ci mot bu mel ni futur maanaam suba wala ëllëg loogu Sénégal gu Sénégal mu doon loo xam ne tamit intéressé na la xam naa nga am ci yaakaar bu baax bu positif jàpp naa ne euh, intellectuel bu toll ni yow euh, munoo am déception ci sa réew ba yaakaar ne ëllëgam du rafet jàpp naa ne ab yaakaar bu baax rek nga am ci réew mi yaakaar boo xam ne ci positif jàpp nga ne ëllëgu Sénégal mën na soppeeku ci kaw sénégalais yëpp bu ñu mànkoo bu ñu boolee seen doole jaarale ko fu ñu ko war a jaarale. ci yoon euh, monsieur mbay ñoo ngi lay jaajëfal bu baax. ci nangu bi nga xam ne nangul nga ñu ko. ñëw wuyu suñu woote bi fii ci Sénégal pour ñu waxtaanee Sénégal ak xew-xew yi nga xam ne yëngal na réew mi. te umpul kenn muy problème mu politique. pratiquement saa yu Sénégal amee problème rek ba ay bakkan du ci rot problème politique lay doon. Euh, rarement ngay dëgg à part accident yi. te loolu du ndogalu doomu aadama ndogalu yàlla la. saa yu Sénégal demee ba am ay coow. ay bakkan du ci rot. loxo politicien yaa ngi ci biir. ngay intellectuel quand même de niveau. Euh, vraiment nga bokk ci yu bëri. liggéeyal nguur. collaborer ak nguur bindal leen sax ay téere. surtout dans le cadre de la diplomatie fii ci Sénégal. ba xamal leen lan moo war a nekk seen taxawaay. xamal leen lu ñu war a xam ci. loo xam ne war na leen mën a dimbali ci seen i liggéey euh, monsieur mbay naka nga jàngatee déjà crise bi nga xam ne ñoo ngi koy traversé depuis deux mille vingt et un mu den une crise politico-judiciaire boo xam ne dans un premier temps dafay concerner ñaari sénégalais ensuite nag mu soppi jikko nag sotti doxalin yu bëri dugg ci ñii jàpp ne politiciens yi dañ cee rax ñii jàpp ne complot la boo xam ne dañ koy teg ci kenn ci ñi nga xam ne ñoom la yoon woo ñu war a atte li leen boole ngay observateur après tout ngay sénégalais au-delà de toutes ces considérations la ban jàngat nga am ci li nga xam ne déjà très rapidement Sénégal mu ngi koy traversé depuis deux mille vingt et jërëjëf merci euh, monsieur Cheikh Tidiane dalal bi ngeen ma dalal si Sénégal maa leen ciy remercier donc comme ni nga ko waxee rek euh, dëkk bi dafa toll foo xam ni actuellement ñi war a wax nanu wax te nit ñi wax nanu wax te bu kenn noppi parce que d'abord avant toute chose dama nekk tout tànk may euh, ma commencé liir jàng lire ma tombé si benn journal bu ndaw duma ko fàtte mukk maa ngi am peut-être huit ans benn ki ko bindoon mi ngi tuddoon Mamadou Dia xaw ma sax président du conseil xaw ci loolu mais li ci lire rek dañ le Sénégal est une la vocation naturelle est le dialogue hmm. c'est dëkk la boo xam ni nit ñi dañuy waxtaan dañuy dialogue mais loolu pour ma ñëw si dialogue bi may wax avant tout dafa am ay bakkan yu rot comme ni nga ko waxee te bakkan su rotee loolu tiis bu metti la dafa am ñoo ñi si seen bakkan rot yëpp dana am ay waajur ñi am ay njaboot am ay mbokk donc Sénégal yëpp la laal seen parce Sénégal de dëkk boo xam ne ñëpp ay mbokk lañu donc fu ak fu fu fu ñu mënti dëkk ak si région yëpp ñëpp ñoo ko ressentiroo di ko mettitlu te comme ni nga ko waxee léegi mm-hmm. yu mel noonu su xewee souvent mi ngi nekk dans la sphère politique politique nag comme man ni ma koy xalaate li xam ni tur bi la ñu naan ñu naan politique politique ñu bari ñu xam ni da ngay ñëw am engagement ni da nga bëgg a jàppale dugg ci politique pour jàppale sa réew wante politique aussi bala nga ko def la bëgg rek comme am lu fu ma njëlbeen fu ma commencé foofu da nga war a da war a tàggat da la war a tàggat. la formation. formation politique. parce que ci biir parti yi. biir parti yi bi muy au début des années sa politique fii euh, récente du Sénégal moi je parle des années cinquante cinquante et un ñaan BDS SFIO président Senghor Lamine Gueye ñu évoluer Mamadou Dia ba indépendance yi ñëw. Mhm. donc président Senghor jël pouvoir bi. mu am euh, fédération du Mali après mu éclatement mais président Senghor ñu def UPS UPS nekk parti boo xam ni parti état la woon moom ma doon ñu ma doon diriger ñu diriger réew mi euh, président Senghor nekk fii ba bi mu fi jóg président Abdou Diouf ñëw après président Abdou Diouf président Abdoulaye Wade ak léegi président Macky Sall moom ko fi jox lan mooy politique donc da ngay ñëw pour demander askan bi ñu ñu jox la loo xam ni dinga leen si jàppale. Hmm. xam-xam d'abord kan mooy def politique politique ku nekk da ku nekk foo jógee mën ko def. Hmm. comme am na fu ma ko waxee bu njëkk ba enseignants yi la woon. Hmm. ñu doon jàngale école te boobu enseignement bi baax na ñoom ñu si njëkk dugg di tàggat mais mu am discipline am formation. am formation bu baax enseignant yooyu après ñoom ñëpp ñoom président Kéba Mbaye Abdoulaye Wade président Senghor même enseignant la. Mm-hmm. ñoom président Lamine Gueye koo fi dégg si tur bi jamono boobu Amadou Mahtar Mbow enseignant nga. après lan dem ñi nekk avocat ñoom ñu ngi jàng jàng William nekk avocat ñi nekk magistrat ñi nekk économie lu nekk ñu après moo mais mais njëlbeen bi si ñiy jàngalekat yi la woon waaw muy évoluer ba après administrateur civil yi ñëw. aussi yore réew mi mais après dugg si politique bi mais politique day loo xam ni ku nekk mën na ci dugg mën ngay liggéey nekk euh, enseignant dugg si ki nekk infirmier dugg si ki nekk euh, plus tard évolution bi laa bëgg a wax ki nekk euh, maçon dugg si les corps de métier mhm. ouvrier avocat médecin commerçant commerçant commerçant commerçant ku ñëw mhm. dugg mhm. donc mooy loo xam ni comme li ma koy waxee pour nga nekk avocat il faut nga jàng dem université def formation barreau doo nekk avocat pour nekk magistrat il faut nga def formation pour nekk magistrat pour nekk inspecteur des impôts et domaines il faut nga jàng def droit dem ENAM pour nekk ko donc métier yu bari docteur lu nekk dafa laaj même maçon bi dafa laaj tàggat pour nga mën a tabax mais poli politique mooy loo xam ni rek mën nga jóge fu nekk surtout jamono yi nekk ci biir politique. waaw comme ni ma koy waxee mu ñuy wax ñii naan la classe politique ñii naan la sphère politique ñii naan le terrain politique ñii naan le champ politique ñii ne naan le landerneau politique yooyu yëpp ay termes la yu ñu utiliser si politique. Mm-hmm. lu mel ni champ su ma ci ñëwee champ ñi ko xamee mooy loo xam ni da ngay produire. tool dangay ngay da ngay da ngay ñëw nga jëmbat jël. Mm. champ politique. ah man champ soit un champ de wante nag su dee politique moom. Mhm. champ bi moom. champ de bataille la. <laughs> encore moom politique champ de bataille la ñuy wax seen politique aussi. waaw seen politique si dëkk bi parce que loo gis rek bu ñëw si politique. Mhm, mhm. mi ngi nekk si société bi. waaw société bi loolu yëpp am na fi mais di nga dégg ñu naan la scène politique. la scène politique su ñu koy wax comédie la. parce que da ngay nekk fenn ba si yàgg nga dem poudre maquillage wala bu ko dem feneen. Mm-hmm. waaw donc euh, comédiens yi dama leen respecté. Mm-hmm. mais mais du ma ni sax comédien mais commique comique ngay nekk. Mm-hmm. waaw comique nekk. waaw da ngay jóg toog fi ba mu neex après nga dem feneen. waaw terrain politique li dal politiciens yu bari te dama si am jàngat parce que damay door a ñëw nekk xale nekk jeune bi ma ñëwee jógee sama jàng ba France ñëw fii assemblée nationale laa jëkk a fréquenté maanaam benn mag boo xam ni. bi ma jogee France Paris jàng dama jaaroon si Jadda dafa visite fa tombé pèlerinage ma am mag bu ma gisoon rek sopp ma bi may ñëw fii mu ne kilifa assemblée ma koy fréquenté foofu la xam lu bari si politique si doxinu réew mi politique ma mës a fekk benn waxtaan am na sax à l'époque benn euh, politicien kilifa la woon ñu koy tudd Alioune Samb mu maire de Pikine su ma man xale laa ñi ma doon ànd ñëpp marganam xanaa vingt cinq ans wala trente ans à l'époque waaw à l'époque mmh. mu ne dama la sopp wante mu ni ma tef du ànd ak bu xaas daf leen doon tooñ tef mooy béy bu ndaw béy bu xaas nag mooy béy bu am gaal waaw ah, te politique yi mu ni ma ñii dan ah, dañu roone si politique te tef béy bu ndaw bi su fekkee ñëw na ànd ak bu xaas bi di jég béy bu xaas bi gaal moom du ko jig parce que ko laalee rek su ko waalee rek dafay defee dee waaw mun ma defal attention benn jour ma fekk benn waxtaan boobu dama ñëw sur le terrain politique dama fekk benn waxtaan euh, ma gis ñaari nit kilifa di waxtaan kenn ki ni ko yow ana xale boobu lay dékk parce que xale boobu dafa jógoon France aussi jàng am ay lijaasa ba pare ñëw fi tekki. Mhm. tekki bu am solo sax ndeysaan. Mhm. mais nag mu dugg si politique bi bi mu ci duggee mu am ku muy dékk dékku ko sax naam dafa ñëwoon pour jàppale ko bëgg nekk maire bëgg nekk maire ñuy waxtaan mu ne ko ana xale bi lay dékk wa kooku ni ko léegi ma rendi ko mhm. rendi ndax mu ne ko pourquoi mu ne ko xanaa mu ne ko ndax amul nijaay man sax je n'ai pas compris maa ngi door a ñëw man après ma génnee ma laaj kenn ma ne kii amul nijaay waa ji fekk xam naa turam mun ma déedéet lu loolu xanaa amul ku koy waxal xanaa amul ku koy conseiller waaw te te te jamono bi ma wax yow ndeysaan waa jooju du loolu moo ko yóbbu àlaxira de parce que damaa na nekk député am na lépp mais actuellement il n'est plus de ce monde pour dire rek c'est un terrain qui est parce que terrain de football li ñu ci xam ñaari camp moo am. da ngay dox ñuy football. parfois même si mbedd mi nga fakkastalu sa wee deñ mais loolu mënu ko def mais terrain politique. Mhm. ay miin ñoo fa nekk. Mhm. da ngay xool fi ngay teg sa tànk. parce que loolu mooy moo lay moo moo moom ci ci loolu nga wax par rapport ak danger bi nga xam ne par rapport ak rivalité bi nga xam ne mu ngi ci biir terrain politique moom mooy justifier donc. yi nga xam ne Sénégal mu ngi koy traversé tey en de conflit politique entre des acteurs clés de ce de ce de ce terrain de ce landerneau ou de ce champ politique. boo ah, xam ne moo fi ne. absolument parce que aussi homme politique yi dañuy ma ñëwaat ma rebondiraat foofu. Mm-hmm. parce que souvent dañuy nax nit ñi. Mm-hmm. ne nit ñi def attention te ñu téye xale yi parce que ñoom dañ déggoo. Mm-hmm. waaw si période ba may fréquente assemblée dama am rendez-vous président assemblée mais may génn. y à l'époque le chef de l'opposition parlementaire waaw bëgguma turam. mais moo du chef de l'opposition parlementaire après mu dajeeg man ci ascenseur bi ñuy wàcc keroog ñu wàccandoo mu ni ma moom adversaire président bi la mais moom ma wax de euh, léegi nekkatul si àddina bi waaw yàlla moom na ko. Mhm. donc mi ngi si dëgg maa ngi fii mais moom ma ko wax mu ni ma le jeune na nga def man da nga sant ma ne ko mbay mu ni ma président bi daal moo baax ay li ma jox tey. Mhm. <laughs> Ah, waaw waaw. ni ma kii du ki nit ku baax ngi nii li ma jox si xaalis <laughs> waaw loolu ma mu am jàngat d'abord may jàng euh, may dem di dem ba bu ma ñëwee présidence loolu aussi secret d'état la mhm. soo gisee euh, bi may ñëwee quatre-vingt-onze ba deux mille moo ma génne présidence parce que projet bi nga waxoon sànq ma def ko mhm. may def document bu am solo parce que ma ñëwee dañ ma recommandé ak président Abdou Diouf mu recevoir ma ni ma soo bëggee liggéey ma ne ko dama indi projet jële ko France waaw waaw nekk ne ko délégué de l' agence d' information et de promotion du code diplomatique mhm. boobu diplomate yi su ñu ñëwee fii duñu am benn information si dëkk bi xarale yu bees yi amul woon loolu mhm. waaw la technique yu bees yi ordinateur ak internet information amagul woon donc suñu duñu am dara waaw mu jël ma deux ans pour ma liggéey si def si liggéey boobu nekkoon aussi si jamono boobu c'est conseil diplomatique communication chef du protocole ñoom Bruno ñëpp nekk sama xarit ba ci aide camp bi waaw ñu gis ma apprécier ma di ma wax di waxtaan ak man ma ma jàng fa lu bare bari sur la politique lu bare bare bari sur la politique ba xam ni benn jour duma dugg dans les détails il euh, y avait un secrétaire du président militaire la en 2000 bi alternance bi ñëwee may taxaw moom fenn ñuy réparer suñu oto mm-hmm. après ma kenn doon ma koy présenté mu ni ma ay mun ma kii su nu xamoon su xamoon ni man la parce que def yàgg na ma téléphoné. Hmm. mais xamul sama jëm pour dire que ñoom dañuy waxtaan. seen biir seen biir. Hmm. président Ablaye Wade. Hmm. bi mu bi mu nekkee ak problème ak ab Abdou Diouf parce que 74 la commencé ba 91. il y a eu les événements de 88. parce que aussi ay problème yàgg na am si dëkk bi. a eu 68. Il y a eu aussi Par la suite, 93. Il y a eu des meurtriers, des hmm. morts. de morts. Mais bi ci Abdou Diouf demee ba xam ni nag lii aussi mi ngi ëpp loxo 91 moom dafa am ay faucons yu ko entouré faucon mooy ñi xam ni duñu bëgg a wax ak keneen. soo hmm. que ce qu'on appelle la radicalité. Hmm. parce que pouvoir dafa am loo xam ni daf ko euh, loolu dafa dafa ànd ak moom ce qu'on appelle la verticalité. mooy. benn buur moo nekk ci kaw mooy dogal parce que ñun si sunu déggin sunu pouvoir mi ngi génne cinquième république en France. Mhm. le président de la république dafa nekk koo xam ni da ngay nekk monarque républicain loolu ñu ngi ko jëlee si César <laughs> césarisme li ma koy wax. Mhm. Bonaparte ñooñu César qui était empereur de Rome wala Bonaparte xam ne aussi nekkoon na aussi empereur en France ñooñu leen jëlee cest à que da ngay am doole waaw te nag. ku yore nguur wala nga yore responsabilité dagam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ni sunu boroom moo ko xelal wax ma au delà de moom sax yonent yàlla instant Jésus Christ amoon ay apôtre ñu ko wër yonent sa am ay saaba yu ko wër mhm. ñu soo leen gisee ñu indi pour xelal la que nit aussi parfois nga def loo xam ni ndegam mm. yonent bi ak li mu am si jikko yu mat. Mm. dañ ko wax da ngay amay saaba. Mm. waaw ñu lay conseillé. d' accord ñu ñëw ci tey jamono tey. ñu gën tuuti ci. waaw waaw jamono tey bi. jamono tey gis nañu tamit euh, ak l' avènement du président Ousmane Sonko Ousmane Sonko nekk leaderu parti politique moom dans le cadre de ce dossier là bi nga xam ne moom moo waral violence ak près de trente personnes yi nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakken ci plainte boo xam ne benn xale bu doon liggéeyee ci benn salon de massage porté na ko plainte. ñu jëlee ko ci terrain judiciaire fexe ba ñoom des de deux parties euh, andi ko si le terrain politique mu jural nu tey violence bi euh, nga xam ne moom la Sénégal di dund tey ban jàngat nga ci am rapidement est-ce que jàpp nga ne lu ñu war a weesu la est-ce que jàpp nga ne lu ñu waroon a xaar la est-ce que jàpp nga ne tamit ndax lu ñu lu ñu mën a moytu la fii ci réew mi tey. loolu li ma bëggoon jëkk a wax. Hmm. mooy que dëkk bi dafa am ku ko jiite. moom am na liggéey bu fi liggéey bu solo. Hmm. ñëpp reconnaître nañ ko. ñëpp ñu koy reconnaître di ko rafetlu na continuer si voie boobu Ousmane Sonko le leader de PASTEF le leader du parti PASTEF moom c'est un inspecteur principal des impôts et domaines loolu mooy liggéeyam liggéey na fa ay at loo xam ni kenn tuumaale ko si dara kenn tuumaale ku si dara dafa waroon sax am décoration si administration mm-hmm. te bu leen réeroo ni bi mu ko nekkee aussi bi président Macky Sall accédé au pouvoir moo moo doon moo doon patron réew mi mooy yore patron administration bi Ousmane Sonko am na jamono yu bari yoo xam ne si ndégalu Macky Sall la nekk mu li mu liggéey li muy liggéey ba bam ba bam fay jógee mu nekk syndicaliste aussi mais tuumaaloon ko fa en tout du lu nu xam lu mu luubal wala lu mu laal kooku nag na ko ñëpp seede mais nag dafa bi mu jógee syndicat dafa dugg sur le terrain politique comme li ma la wax léegi qui est un terrain miné teree la boo xam ni comme li ma la wax sànq sa fakastaloo sa way dafay dañ mais fii mil la kon da nga jàpp ne Ousmane Sonko dafa fakastaloo ci. Euh, non non dama lay expliquer terrain politique bi mu dugg. Mm. qui est terrain glissant. Mm. Mm. xam du la may dara du la may dara moom moo def deful mi ngi ko seq ak benn jigéen benn xale. et li ma yaakaar mooy su fekkoon nii dafa dañ ko fekk si bureau bureau nit ñëw ni si bureau la ko fekk. yaa def lii ah ñu ni si bureau bi la ko fekk. dañ ko fekk hôtel wala bu dem fenn yaa def lii ñu ni déedéet. mais salon de massage la dem salon de massage nag bari na bari na de bari na trop si dëkk bi. amul rek yàggul loolu il faut ma wax ko lu gàtt. sama benn euh, rakk kilifa la kilifa bu mag la moom koy nettali après bi affaire bi amee mu ni ma grand ma ni ko waaw mu ni ma man sama liggéey dafa metti ba xam ni damay massé wu mais nag si chinois yi laay dem. kon il faut ma wax ko parce que moo ko wax. mu ni fi muy defee sport benn bis nit ni ko fii aussi am na salon de massage mu ni man su may dem damay sol caleçon bu gudd. genre fuseau. moom lay sol su may massé ma sumi sama kaw ñu massé ma mais nee ne bi ma duggee si si salon de massage bi li may wax yàlla rek moo tax ma koy wax nag de. mais bi mu duggee ba tëju xale bi daf ne ko sumeekul mu ne ko sumeekul ah mu ne ko sumeekul. <laughs> waaw malgré fuseau wallaay wallaay mi may dégg. malgré fuseau bi. mu ne ko sumeekul nee na nag bi ma ko ma nee na ma tiit. Hmm. xoolaat salle bi sa aw kawari sima xoolaat téléphone yi <laughs> nee na man man nu ma ciy génnee waaw parce que dama sumeeku léegi mu ni ma ma ne ko dama diwoo saafara si suba <laughs> boo xam ni sama yaram warul feeñ. Euh. waaw xam naa si suba dinaa dellu si <laughs> nee na dama may génn ay xel laa fa pour te dire aussi lu ne xaw na si dëkk bi. Ah. leneen am na si aussi. mooy euh, dañuy wax dëgg dañuy wax affaire bi mu leer. ay góor lañu góor sidit la. góor sidit la dëkk bi man am na lu ma ci xam tamit. am na lu ma xam. waaw ñëwaguma si jugement bi parce du ma ci dugg. parce que affaire jugement comme ni ma ko waxee ay magistrats la. qui sont formés et na leen jox seen cër. parce que chaque jour ñu ngi def ay jugement si dëkk bi chaque jour jugement am na si dëkk bi. te Sénégal rëy na. na y a les cours et tribunaux y a même même armée xam ne honneur la aussi ñu ra ñu jox leen njukkal aussi armée parce que armée bi dañu respecté à travers le monde. champ champ de bataille bu nekk ma dem nañ fa. d'accord tous les terres d'opération. Mm-hmm. waa donc même foofu dafa am justice militaire. Mm-hmm. même le euh, si kaw ba ci président de la République y la haute cour de justice. Mm-hmm. même si biir justice. y a ligage ba xam ni moom moo leen di ta atte donc justice moom su day wax su waxee nag nit day màndu wante pour ma ñëwaat fii si li nu wax li nga wax sànq si leaderu euh, Ousmane Sonko man miinuma ko euh, mois de février laa mës a gisee moom benn kilifa bu ma seeti woon ñëw toog ndekete moom moo nekkoon si biir ko kilifa diine la hmm. waaw bu toog fa diir ba mu génnee la ma ñëw nuyu nuyu ma ak yar ak après mu génn kilifa bi ban la recevoir après rek jóg dem ba dafa amoon soxla yu bari. Hmm. boobu laa ko gis waaw ma may xool si bëtam mu tu le le tourment tourmenté na parce que suñ la jiiñee dara nga nekk boroom kër surtout lu ñu ko wax. Hmm. viol nga nekk borom kër ku mu daloon ah dinga dëgër de. Hmm. fii Sénégal la de dëkk yu bari wax nañ leen ko fa ñu xaru. waaw wala dara dal leen. mais moom muy lu dal si moom mu nangu ko. donc jeune la aussi c'est un jeune mais dugg na daal le euh, terrain politique mais amul expérience. Hmm. parce que c'est un terrain miné wax naa la ko léegi. lu doy waar la li ci gën a gàtt sax mooy yàlla suturaal li ma la waxoon mine bi su laalee sa tànk moom xëy na tànk bi demul day dan day dem moom. Hmm. su sa yaram demul. waaw waaw donc muy lu doy waar. su la reyoon yóbbu sa tànk. su su yore su sa tànk rek nga hmm. sant yàlla. waaw parce que mën na la jural leneen. maintenant daf ko seq ku nuy wax aussi Adji saar man dama ciy màndu. parce que moom aussi sénégalaise la. d'accord. waaw d'accord am na solo. waaw est-ce que jar na ñu ñu ñu gis nañ ne moom souvent dafay dafay ne nguur gi dafa profité ci dossier bi complot la boo xam ne dañ ko teg ci moom gis nga euh, nee na ñu dem ba barricade këram façon bu bu nekk nee na ñooy koy teg ndax bëgg ko écarter ci élection présidentielle bi nga xam ne foofu la ñu jëm est-ce que loolu quand même justifié na li ñuy dund nii yëpp ci ñaari côté yëpp. waaw mais dafa ab loo xam ni. Euh, le président Macky Sall moom moo yore réew mi. Hmm. dafa y' a trois personnages en politique aussi. Hmm. le personnage politique. Hmm. Euh, il est secrétaire général d'un parti bi muy doon ñëw daf ni le le la partie avant le parti. mais j'ai vu que jusqu'à présent moom mooy secrétaire général parti donc y' a aussi man ki ma xam si président Sall man j'ai connu le candidat en 2011. j'étais à deux doigts de rejoindre la euh, l'APR. si yoon bi laa nekkoon sax pour dem Sacré-Cœur pour de ko am sa benn rak bu tudd Baba Diallo. Mhm. créé benn moom bu tudd Antar nekk rakku Marième Faye Sall ak ak Macky Sall mu dugal ma si Antar donc de 2011 ba fin 2012 ñu ngi jàppale Macky Sall man may président du comité d' organisation de son avant dernier meeting au terrain de keroog ñëw na fa su ñëw day dugg si benn oto oto bi day ñëw rek jóg taxaw day yëkkati ko mu jëlee micro bi mu ñëwee nag bëgg def loolu ma ne ko déedéet da ngay wàcc mu ne ma mbay sécurité tourment bi ma gis si Ousmane Sonko keroog moom laa gisoon si bëti keroog mu ne ma mbay sécurité après muy xool ma bi yi wër parce qu'il a été ministre de l'intérieur hmm. premier ministre hmm. et sondage yi génn moo rek président ma ne ko xoolal terrain bi mu xool y avait 60 jeunes yu ma jëloon yoof keroog maa ngi fa jóge 3 heures du matin parce que ba pare xale yi ni ma euh, ma fay seen xaalis te fekk na trésorier bi daw na moom trésorier bi sax mbokkam la mais moom li ma mujjee tàgg toog moom mu ne ma Khalifa Abdou Aziz Mbaye jërëjëf jërëjëf jërëjëf keroog laa gëj gis. Hmm. parce que aussi keroog am na ku ñëw ni day jël parole ma ne ko doo ko jël après mu am ndombo tànk mu dem ni antaar amul nit. bi ma paasee sax loolu si campagne présidentielle bi si législative yi defar naa ko beneen rencontre ma feesal salle d'unité africaine bu foire bi. Hmm. ba responsable li ma monsieur mbay maa ngi door gis bu fees ba boor. <laughs> loolu si jàppale ba am ay sëriñ ñëwoon ba gedd tax xaju di salle bi mais boobu laa gëj a gis. Mhm. man nag aussi euh, de 91 ba 2000 maa ngi présidence xam naa nu ñuy rencontré. Mhm. mais nag du ma la dimbali ba pare toppaat si ginnaaw kooku du ko def. loolu bu amee moom moo yore réew mi nag kilifa nag da ngay tëdd njaaxaan. donc moo war a fexe ba de décrisper tension bi nga xam ne ñoo ngi koy traversé. ak olof dafa am lu mu wax. Mhm. daf ne ki am ak ki amul su gëj a amee si am la. ki am doole ak ki amul doole su su problème amee si ki am doole la. Hmm. si am doole la xaw nga ndax dégg nga wax bu baax a baax. moom mooy kilifa bi. Hmm. Ousmane Sonko bi mu nekkee euh, li ma la wax léegi inspecteur des impôts et domaines. Hmm. nekkoon na si ordre mais léegi mi ngi si politique. Euh, mais li ma bëgg a wax foofu rek def na deful. yàlla rek moo xam yàlla rek moo xam. waaw mais yow gis nañ déjà nga ne tu pourras mën nga taxaw fexe ba organiser benn dialogue. benn rencontre benn genre ndaje wala nga nekk sax médiateur entre président Ousmane Sonko ak président de la République Macky la loolu ndax la mën a nekkee yow nan nga ko mën a réussir. no jamono bi moo ko laaj xam nga président initié na le dialogue national. waaw daf na ko. Mhm. bi ñu ko defee aussi politique moom mel noonu ce qu'on appelle la radicalité. Mhm. bor bu nekk da ngay tiiru. te waxoon na li am mars deux mille vingt et un du am. Sonko rejeté na dialogue boobu du am. du am mhm. juin deux mille vingt mais am na. Mm-hmm. ay mort yu ëpp encore ah ñu ñu pillé ñu pillé parfois ay samba lay nekk aussi. Mm-hmm. parce que keroog métal bu bu bu bu bu bu. bu nekk bu nekk Pastef wax na ko. Mm-hmm. nee na militant nee na am na ay ay samba ñoom ñoo ciy profité parce que dëkk bi aussi dafa am lu mu laaj. dëkk bi nan ko say ceytu nan ko xool. sur l'identification dëkk naa étranger man dëkk naa étranger lu yàgg donc dama bëgg étranger bu ñëw sëri si réew. mais man yow cherté ak ñeneen mais dañ lay dañ lay wax nga am carte carte d'identité dëkk bi man gis naa ay zone yoo xam ni parfois gis benn immeuble inachevé yu ban ñoo fay dëkk waxuma ñu carte d'identité il faut la nationalité mais ñu ut ay carte d'identification waxuma pour rëbb ay nit wala dàq de déedéet pour ñu mën la photographier xam la pour ëllëg si biir c'est important nit il faut que ñu mën ko identifier hmm. au-delà carte d'identité xam ni si les nationaux ya yàlla carte CEDEAO mais am na ñoo xam ni soo leen laajee gisu leen ñu am carte d'identification photo leen pour ëllëg ak si biir su dara xew ñu xam ni ñii la doo mën a rek ñëw ñuy dox ni kenn du xam kenn kan ku nekk mën na ci dugg parce que li tax université récemment mais kooku doy étudiant étudiant c'est-à-dire sa outil de kenn ko yàq. Mhm. outil de travail mécanicien bu ñëw jël trousseau yàqu ko loolu amul loolu am nañu ci rax. donc su amee comme ni ma ko waxee dafay laaj quand ay nit yu neutre man je nii ni d'un camp ni de l'autre yàgg naa si régime xam naa lu bari xam naa ay secret d'état en 2000 mën naa dem ci Ablaye Wade ñëw na nekk conférencier à la Sorbonne sama profil intéressé ko ma mu xam ma jox ma kartam ku bëgg nit parce que politique loolu la. Mhm. bi ma ñëwee deux mille dama ma si moom. parce que sama waajur bu góor dama doon wax gor gor gor di ko répété góor day def lii góor day def lii et eh, xaar sama xar yi ma nekkoon ñoo xam ne ñoom ñoo gën a jege président Abdou Diouf ay kangam c'est conseils spéciaux c'est mes amis ba léegi ñuy jox ma cër ba ba léegi nag parce que moom naa dem mais soo demee ñoom dañuy tiit parce que am na lu ma xamoon. am na loo xamoon waaw lu ma xam lu bari sax am na lu ma xam de. <laughs> ba pare euh, même président Macky Sall ñëwee. mais moom mu prôné quand une nouvelle approche du développement. d'un jàpp ne Ousmane Sonko ak Macky Sall dañoo war a toog te président Macky Sall moo war a jël initiative boobu. mais moo ko war a jël parce que moom mooy mag Ousmane Sonko man da ko nijaay Ousmane Sonko dafa am ñaari choses yu ma wax. erreur politique ak faute politique erreur politique c'est verbal. bon dans l'affaire Mame Mbaye Niang ñu koy tuumaal mu dafa tudd Mame Mbaye Niang peut-être moo doon wax rek Prodac parce que ñoom wax naan Prodac. ñu ko ci wax yooyu encore yooyu sax jéggale mën na am. dans l'affaire Adji Sarr peut-être faute la. parce que su xamoon état man ni ma ko xamee. duma génn guddi di dem. waaw wóorul parce que sooy génn renseignement ñu lay topp. da nga attention mais xamul et je lui prête une bonne fois bonne fois aussi. parce que moom mu mu dem nekk kilifa nekkoon troisième présidentielle yi dem foofu war na keroog si Kamil je le crois défendre ma ko nag mais je crois que en âme et conscience ah xëy na moom dugul si loolu. mais nag li ko dal nii ñëpp dañ koy metti lu mhm. parce que li ma ko waxee c'est pas l'ennemi public. d'accord yow léegi boo nekkoon médiateur par exemple lan ngay def ba Ousmane Sonko ak Macky Sall ñu mën a daje. Euh, euh, Cheikh Tidiane le Mandela. Mhm. le président Mandela. Mhm. ñëpp xam nañ ko. président Mandela def na 26 ans de prison. ñu tëj ko fii ñu wax dañ ko bunkériser ce qui n'est pas normal d'ailleurs mais bon du ma dugg sa état. atteinte à la sûreté yooyu yëpp état mën na moom moo koy wax. Mandela 26 ans la def prison. waaw keroog bi ñu xamee lii du wéy ay kilifa ñoo jóg ñoo xam ni da nekk dans les affaires des moon tuuti jóg président ba fa nekkoon Frédéric Leclerc xam ne intérêt bi yëpp dafa da koy da koy perte mu jóg taxaw ni ñu waxtaan. waxtaan jubóo Mandela mu nekk président coow am. ki président dafa am loo xam ni kii ñoo koy wax les romains dañ ni que sera sera mooy lu war a am dina am <laughs> ce qui doit être sera loolu yàlla mbiru yàlla la du suñu mbir li war a am li war a am dina am ki war nekk président dina am mais li ma jàng si aussi si état sur les mandats parce que constitution bi moo consacré loolu moo ne deux mandats mandat de sept ans ay arguties judiciaires kooku te aussi même les constitutionnalistes les constitutionnalistes mais warul réeroo. de réeroo nañ demoo. non c'est des c'est c'est sciences juridiques. mais mais ñun ñii lambda yi nga xam ne du ñu ay juristes. waaw du ñu ay constitutionnalistes. waaw ku ci lire article vingt sept. waaw nee nañu le mandat est de cinq ans. waaw nul ne peut faire plus de deux mandats loolu moom leer na. non léegi nag fu histoire constitution fu ñu jógee ñooñu xamuñu. non li li war a am daal. Uh-huh. li ma jàng man wax naa ko. Uh-huh. mooy Sénégal bii di ñëw. Uh-huh. président Macky Sall sax def na def na deux mandats. na douze ans. kenn dootu fi defati mais nag foofu laa bëgg a ñëw sur la durée du mandat. gis nga dëkk bi suñu waxtaanu léegi ba xam ni ni ñuy am jàmm ma ma dindi leen faucon faucon yi da nga leen di dindi parce que faucon yi ñoom dañu bëgg rek. di xamb te loolu baaxul. di nguuru. di di di xamb. xamb di continuer nguuru. baaxul xam nga pourquoi loolu am. <laughs> président Abdou Diouf sax si jamonoom. Mm-hmm. bi Senghor demee seen defoon enrichissement illicite mu rëcc ko parce que am na benn kilifa boo xam ni ay kilifa diine ñoo ñëw sax seet si ko ni ko président ne soo bindee mu ne du ma bind parce que dafa ma dara. Mm-hmm. ñu tooñ ko président Abdoulaye Wade di ñëw xam naa ko de parce que. ni ma ko gisee man li ma regretté naa mais regretté wu ma aussi. j'aurais bien voulu l'accompagner. Mhm. parce que li ko dal man séntu woon naa ko bi nu ko amee ñu ko wër si fin réunion parce que Ablaye Wade président président Ablaye professeur Ablaye Wade sax lay def parce que ñu bëri na naan maître Ablaye Wade mais man ki ma xam Sorbonne c'est le professeur parce que il a été doyen de la faculté des sciences juridiques économiques borom xam-xam la nañ ko nangu loolu yëpp xam-xam si àddina bi si la bokk loolu moom il ñu nangal ko loolu. bi mu ñëwee def na aussi ah, ñu ñu def aussi euh, ñu traqué ah def enrichissement illicite si moom la jógee jégul si moom je ne le mais y avait des faucons yu nekkoon si biir ba mu demee ba fa mu yegg regretté na ko loolu baaxul si si nguuram téye nañ fi ku tudd Baratal. Baratal. Mm-hmm. il faut ñu xam ko. entrepreneur capitaine capitaine capitaine d' industrie. Mm-hmm. jeune ingénieur polytechnicien mu liggéey fet ba njox ko fa. bi bi bi bi muy nekkee boobu si sa Ablaye Wade demoon na ba ñeen plus de cent milliards de matériel pour liggéey. Mm. ñu xëy benn jour tëj ko. te à l'époque monsieur Idriss Seck waxoon na ko nee na du xaritam xarit Ousmane Tanor Dieng la dëggal naa ko loolu xaritam la man fekk naa fa mais ñu jël ko dugal ko si ba yàq àddinaam. ba tey kenn dëggaatu ko. ba kenn dëggaatu ko te moom foofu nag ñu wax si affaire sénégalais nan xoolaat suñu bopp. Mm. nan respectaat suñu bopp. Mm. parce c'est vrai CEC e mi ngi fii c'était Jean Lefebvre CEC e mi ngi fii CD mi ngi fii mais CD jamono bu daawul defar tali CEC e moo ko defar ak monsieur Baratal Baratal su ko jàppale ba léegi mais kii auto autoroute à yi ñuy def mais dina ci def benn muy ndamu Sénégal parce que dëkk bi dëkk bi dafa am ay industrie dans les années 60 man sama waajur bu góor directeur la woon ICOTAF ñu ko tuddee industrie cotonnière africaine usine bi di tourner 24 heures sur 24 ji ni ngay gis nii tissu bi. foo doon ko ko yóbbu ñu koy defaraat léegi industrie yi amatul soti amoon na soti ba vax léegi da ngay importer vax Sénégal mi ngi boobu mi ngi woon dans les nag après y a l'ajustement structurel des problèmes mais dañu waroon continuer man bi Macky Sall président Macky Sall ñëwee foofu laa ko yaakaaroon parce que c'était un ingénieur man dama au-delà même euh, kii ko dama ko gisoon comme quel un bâtisseur mais un bâtisseur c'est pas ay autoroute ay pont bien parce que man su may dem actuellement amoo fi sama sœur nekk dix minutes laay def fu ma doon defee une heure de temps kon donc kon donc nañ reconnaître li mu liggéey péage bi sooy dem Tivaouane ngay dem Thiès ngay dem Touba dafa gaaw donc liggéey na mais aussi dañu war a tàggat xale yi parce que xale yi amuñu liggéey. voilà ci loolu gis naa ci benn tribune boo def nee na ci éducation civique bi nga xam ne euh, ñooy koy def mooy les ASC yi nee nga nañ ci yokk defe naa beneen C. non dama bëgg ñu créer. xam nga hmm. li xew récemment. Hmm. si quartier yi waaw. ASC mooy association sportive et culturelle. dañ ci war a def beneen C muy civique. Mhm. le civisme la citoyenneté. Mhm. ñu boole ko si. Mhm. pour tàggat xale yi à la base. parce que bu njëkk ba da da ngay def institution civique mais ñu def ko si quartier yi responsabiliser leen loolu ñu def ko ba pare ñu def service national ko il faut mu am entre dix huit ans et vingt cinq ans. jeune bu nekk. nga dem nga jël benn année waxuma armée bi ñu lay jox ay fusée de mais bu ñu lay tàggat pour nga xam sa réew. soo dëkkee Dakar ñu yóbbu la Ziguinchor soo dëkkee Ziguinchor ñu yóbbu la Kaolack parce que dëkk bi ñun ñoo ko bokk. Mhm. man mii wax ak yow nii Ousmane Sonko li leader Ousmane Sonko nekk maire de Ziguinchor le maire gënuma bëgg Ziguinchor. parce que da nga xam Ziguinchor. gënuma ko bëgg déedéet. Mhm. naam dama am ay mbokk. Mhm. dama ay mbokk Ziguinchor am ay xarit am ay ima yoo xam ne Tiwaawan lañ jàngee. sama kër maam. donc man Ziguinchor ba pare mu nekk la région naturelle de Casamance. Mhm. ñu mën fa di jëlee lu bare bare bare xam ne su waxtaan amee di dinañ mën a régler problème bi. te te dans l' affaire Adji Sarr je me rappelle. Mhm. si si njëlbeen bi première bu sorteem na ko ñëpp xool loolu la wax boobu jaaxle na. mu ni président Macky Sall su bëggee sax dinaa ko jàppale si affaire Casamance bi rébellion yi loolu dégg naa mu wax ko. Hmm. après nag lan ko bu lan ko buntu xataal pousse ko moo commencé aussi gis boppam. rébellé wu euh, même pas rébellé wu mais dañ lay dañ sama doom mi ko sànq parfois même même même un animal xaj. soo ko kiiyee. acculé day fippu day fippu. attaque la waaw. Ah. te moom li mënoon na am moo nañu ko mënoon ko waxtaanee. Hmm. parce que aussi moom bon amagul ay kàngam. na naam am am na parti am na sax ñu mu jël temps yi mhm. des professionnels mais war naa am ay leader mhm. ay ay personnalité yu éminente yu koy xelal mu déglu leen aussi mhm. parce que li ma bëggoon wax ci mandat bi mooy lii soo defee mandat de cinq ans deux mandats yu jëkk yi yaa ngi def ay règlement de compte waaw ba ma nekkee xale yi dama daan romb di benn cinéma Gary Cooper ñu bind ci affiche bi règlement de compte à Hockey Coral ma <laughs> léegi maa ngi fàttaliku règlement de compte baaxul ay règlement de compte ngay def deux premières années yi deux années ngay liggéey muy quatre ans cinquième année bi campagne électorale ngay préparé parce que ko bëgg xaj deux mandats <laughs> mu rey boppam. waaw bëgg andi sa programme bo. non deux mandats moom deuxième mandat koo ko xaj mu rey boppam il faut mu def deuxième mandat léegi mu dem deuxième mandat deuxième mandat soo ko defee trois ans ngay liggéey. deux ans yu mujj yi gars yi ni ah kii dootu nekk président gars yi dem nañu. nga nekk ci xeex <laughs> nga nekk ci xeex parce que. est-ce que le problème de pose pas problème fii ci réew mi est-ce que waruñu dem ci beneen modèle. il faut ñu waxtaan lay laaj nag. Mm-hmm. parce que comme ni ma la wax en vérité. Mm-hmm. et suñu organisé wul. li président Obama waxoon. Mm-hmm. il faut des institutions fortes pas des hommes forts. <laughs> fii nag li ma la wax avec la verticalité. ah tu es monarque républicain. Afrique nag dañoo soxla ñaar yëpp de institution ak homme waaw mais mais mu mais d' accord naa d' accord naa foofu ma ñëwaat foofu. Euh, ñun fii chance bi nu am. mais xale yi xamuñu Mali. ñu ngi naan Assimi tax Goïta mais déedéet depuis 68. waaw Modibo Keïta coup d' tax mhm. def na vingt ans. Mhm. na mu génn si réew mi baaxul. régime fort am na aussi. Sékou Touré def na ko. Mhm. mais aussi après dafa am ñoom Lansana Conté ñoo ñëw. Eyadema def na ko Mobutu def na ko homme fort. Mm. mais dafay fekk homme fort aussi am institution forte yu la wër. ba pare di liggéey. ba pare ñuy liggéey. waaw ba jóg génn ci ay njuuj njaaj. ñu génn si loolu parce que foofu laa ñëwoon si formation. politique ay futilité politique yi ne dañ koy dugal ci réew mi mais finalement ci la ñuy jëmee mais duñ jëmee ci formation politique laa lay wax. Mm-hmm. parce que ah, euh, si dans président Senghor. Mm-hmm. dal na ko ñu koy wax ndeysaan ak benn kilifa bu ñëwoon seet si ko. Mm-hmm. mu ne ko kii ma kii day dafa nekk ban si daara ji dëppoon nga def ko député. Senghor di député. <laughs> lala ni ko may ma mi ngi doon dóor ñëw si ganale bi parce que ngoon mu ñëw ni ko eh, député boobu mu ne ko est-ce a tàccu <laughs> waa ji dafa tàccu sax ba ba sëriñ bi jaaxle <laughs> xam naa taal mën a tàccu noonu dafa tiit Senghor d'accord na ñëw moo tax au début bien que amoon ay cadre mais aussi politique da xubu xubal ñu ko tuddee la chambre des applaudissements des applaudisseurs chambre d'applaudissement moo doon bu njëkk ba léegi depuis quelque temps lu mujj ma gis xeex si assemblée. Ah, waaw di xam ni sànnante xeer. une sacralité. Mm-hmm. mais wax naa ko temps yi la passé aussi si benn tribune man le président de la république aussi dañu war xool les emblèmes et les symboles de la république man def naa ci benn conférence de presse ma gis ñu génn ay flèches yu bees. Mm-hmm. ay flèches yu bees ñetti flèches verte jaune rouge daf étoile daf ko bëgg daf drapeau. déedéet mm-hmm. Ablaye président Ablaye Wade dafoo def hymne national changé ko anamu lii du prospérer et li ma ci indi woon ma koy wax maa ko jëkk a gis dans les bus Dakar Dem Dikk maître Moussa Diop mu doon directeur Dakar Dem Dikk mhm. léegi xëy na jël na recul mais à l'époque mhm. c'est la jëkk ñuy floqué euh, euh, le plan Sénégal Émergent avion mais mais dafa foofu foofu la commencé moom juriste la mhm. waroon na daw loolu un jour euh, mi ngi si opposition peut-être léegi mais sera condamné par le tribunal des pairs des pairs parce que xam na loolu après ñu indi ko si terre bi indi ko loolu muy indi imagine terre bi ay xale nekk si banlieue gis ko ñu ne ki mooy plan Macky Sall du duñ ci ki ci gis seen bopp. Mm-hmm. dafa am ay dafa de la constitution boo xam ne na consacré drapeau national vert jaune rouge. et les autres ak dimension yi. Mm-hmm. le sceau. Mm-hmm. le lion passant. le baobab ah ak l'hymne national man hymne bi tey su ma xëyoon léegi bëgg ko changé. pincez tous vos corabes la pincez tous vos balafours da nga naan ma bay arrêté mhm. c'est sacré. Mhm. donc bu ñu jouer si loolu. d'accord am na solo maintenant est-ce qu'on ne fait pas partie on ne fait pas aussi face à une sorte de domination de la pensée pure intellectuelle. euh, par rapport à ce que nous imposent maintenant les nouvelles les nouvelles les nouveaux arts de parti maanaam quelque chose boo xam ne dafa entraîner in démission des intellectuels wala peur bi nga xam ne da leen di yóbbaale ci seen prise de position parce que gis nañu euh, Felwine Sarr ak kii di Bougar Sarr ak Boubacar Boris Diop ñu génnee benn tribune boo xam ne benn parti la ñu axé seen analyse dénoncé jàpp ne li fi xew tey yëpp président de la république mooy responsable bi am na ay nit ñoo xam ne nee nañ des intellectuels comme eux aussi ils ne pouvaient pas oublier ci seen tur bi ñu di dénoncer les attaques qu'on a portées sur la bibliothèque universitaire ñoom ñëpp ay écrivains lañu. Mm-hmm. c'est des auteurs de renom. Mm-hmm. et ñu bëri tamit ñaawlu le fait que ñoom ñaawluwuñu euh, ñu taal archive fac lettre tey ñun ñi ñëpp suñu traces yi disparaître na foofu dara mënul woon ne jaaroon nañ fa à moins que mu am peut yi nekk ci ordinateur yi ñaawluñu tamit le fait qu'on s'en prenne à des amphithéâtres loolu yëpp ñu ignoré ko sàppe ko ñu bëri jàpp ne ils sont sous le dictat bi nga xam ne dañ koy imposer léegi intellectuels yi ba dañuy bañ a am analyse boo xam ne analyse froide la boo xam ne c'est une analyse qui ne serait pas biaisée est-ce que loolu tey tamit euh, ne pose pas de problème dans le cadre de yi nga xam ne ñun ñoo koy dund tey ci réew mi parce que tamit il faut que ki koy wax yow naa ne il faut que les gens parlent ñi nga war a wax léegi bu dee ñoom dañuy wax jëmale ko ci benn boor am duñu am sañ en tout cas jëmale seen xalaat ci ñaari boor yëpp. est-ce que donc loolu jotul tey ñu tiit ci réew mi. Euh, li nga wax la man bi ma amee samay diplôme def naa présidence dix ans mais de 2000 à 2023 fréquenté wu ma les allées du pouvoir. Mhm. nit nit man même ba mu fa nekkee dama amoon sama caractère parce que j'étais pas membre du parti socialiste. 2000 mhm. su président Abdou Diouf ki yoon dinaa boobu laa bëggoon dugg parce que il fallait que ma jàng am lu ma xam. Mhm. mais actuellement intellectuels sont couchés devant les c'est très grave c'est dangereux même c'est un précédent dangereux muy quand ay intellectuel laa wax ah de tout bord mën nga nekk juriste mën nga nekk intellectuel penseur économiste ils sont couchés devant les politiques loolu lu doy waar la c'est dangereux même parce que l'intellectuel au sens propre du terme ñu koy wax il doit se nourrir de pain et d'eau froide <laughs> warul xalaat ay kat-kat wala xar ay yére promotion déedéet da ngay nekk un homme véridique parce que parce que mën nga dimbali nit dans la vérité. waaw parce que nit soo ko dul wax dëgg le conseil doit jouer son rôle. un conseil il doit jouer son rôle. Hmm. man gis naa si temps président bi Diouf mu dugg sumb dara conseil yi ñëw à l'époque maa ngi ko samay xarit sànq Bristol la la yoroon Bristol les les les papiers à carreaux euh, soo ko jëlee mais doo dépasser douze lignes. Hmm, hmm, <laughs> wax ko li nga koy wax. mu nagu. war ko ko ba tey mu nangu ko doo ñëw ñu coucher devant toi je commence par la plus haute autorité de l'État ñu bari pour pour te faire plaisir kooku du jëfu intellectuel borom xam-xam borom xam-xam waru warul sëgg waru nekk un laudateur waru ko def di la wax lu neex di bind pour alliance lool c'est dangereux ne intellectuel il faut qu'il se ressaisisse te li wax léegi si université man avant ma dem France jaar naa université de Dakar jaar naa université de te actuellement may wax yow nii maa ngi seede ni am na solution pour université Dakar pour pour sécuriser ko mais nag kooku da ngay wax ay xam borom xam-xam. Mhm. pour université ba xam ne dara du fa xewati. d' accord loolu am na lu ñu ci xam. d' accord le troisième mandat léegi qu' est ce que tu en penses il faudra que Macky mu sursoir que mu wax clairement du bokk. wala dañoo war a dem ci jaloog boo xam ne c' est un dialogue inclusif qui permettra à tout le monde de participer sans sans que ñu taal réew mi. du ma ci sori dina bokk du ma bokk moom waxagul yaa day signe nag. gis naa ay yoo xam ne ñu ni mooy ñoom moom mooy nekk seen candidat. mais mais àddina dina toll foo xam ni. constitution bi dafa am nu mu wax parce que dans la temporalité. moom mooy mooy bible bi la constitution. Barthélémy Dias wax na ko nee na mooy suñu mooy suñu kaamil. waaw mooy suñu ak suñu bible fii ci réew mi dans la temporalité moom moom mooy mooy suñu bible constitution bi am lu wax mm-hmm. te nag. li ma gis man ma xam ma ma ma am ko ma ma yëg ko mooy Sénégal bii ñu nekk parce que Sénégal yi aussi nit ñi xamuñu leen. Hmm. mën na la yëkkati mais bis bu lay bàyyi doo ko xam. waaw <laughs> bi ma nekk si ab président bi Diouf. Hmm. en 2000. Hmm. ki def campagne du deuxième bi. moo tax ma waxoon la sànq mënu moon def si ko def. man maa ko téye si loxo maa ko dugal biir présidence sama protégé la moo def campagne deuxième tour bi du ma wax tour mais. une semaine avant élection yi dama dem CBAO di am lu may retiré chef de comptoir bi li ma monsieur Mbaye ma ne ko aham mun ma bëgg gis buur buy daanu ma ne ko waaw mu ne ma mu ne ma Abdou may reetaan. <laughs> waa ma <laughs> ko wax parce que moom mi ngi si dëkk bi gis na li parce que président Abdou Diouf dañ ko fi génne benn ngoon yóbbu ko si cabri 10 dugg benn boutique ñu indil ko boobu amagul euh, les microdoses. boobu hmm. ay mbuus lañ koy def café yi ak ñu indi ko ñaar mu lii am na si réew mi ñu ne ko moo fi am. dëkk bi léegi loo ci mënti wax ak lu la mënti wax dëkk bi metti na. Mhm. li ji suñ lekkee du naan metti na damay si dëkk bi laa nekk. waaw et puis dañu am na soxla maintenant. Mhm. il faut savoir partir en résumé. Euh, ak lu ci mënti am daal. Mhm. président Senghor keroog ba muy quitté réew mi. am na benn soxla su mag bëgg ma tudd ay tur ne kon responsable parti bi dafa daw fekk koppali ba mu déggee mbir bi ni ko Léopold noonu bu doon bàyyi mu ne ko nguur kenn du ko ñedd. moom ci boppam mu répété ko. góor kenn du ko njëkk si la demee moom. Hmm. président bi ñu def na vingt ans. ah ñett du ko demee dafa waajaloon quand même moom tamit il a préparé son successeur ah, intelligemment. Ah, ak lu ba ak lu ak lu ci bët rek mais bu ko ñeddul. mais wa non non waxin la. waxin la mais bu ko ñeddul joxe na ku koy ñeddul. mais waxin mais mais waxin la rek waxin la rek c'est-à-dire que moom moom laay wax. Hmm. entité personnelle moom nitam. Hmm. moom si boppam moom tam. <laughs> c'est vrai. ah, ah pour te dire plus tard y a eu des crises mais du ma dugg si loolu. d'accord bi président Abdou Diouf def vingt ans. bëgg benn mandat amul. d'accord président Abdoulaye Wade nag lu ko nangul du ko nangul keneen mais nag aussi li ci métti seet yi. mooy xam nga nit ñi loolu laa la wax sànq. deux ans avant ni mu demee nii sa mandat jeex deuxième mandat bi les rats politiques li ñuy wax les rats politiques ils quittent le navire. Hmm, les anciens. non non j'utilise le terme rat politique. xam nga ne rat politique mooy lan la navire nga mooy lan. gis nga bateau. Euh, bateau euh. su sifflé ni dafa war a dem jinax yëpp dañuy génn xam nga ndax lu tax. Hmm. parce que su leen fekkee si biir ba gis si kenn si géej koy sànni. <laughs> donc donc donc ñu ngi quitté ma bëgg ci wax leneen mooy que les mandats nañ ko xool si sama réflexion li ma bëgg dugal bëgg naa dugal beneen mais naa la ko léegi mais ñëw si mandat yi mandat yi bu ñu ko yemale rek si président de la république. Hmm. beneen benn ministre war war def dix ans de fonction. Hmm. même soo fekkee ànd nga kenn ñu compte ñoo commencé def décompte soo paree. ñu compter su su dematee dix nga bàyyi. ah parce que sénégalais yi quand même ñu ah, xam-xam mën nekk ci. loolu a wax jiitu nga ma si euh, Cheikh Tidiane. Mhm. li ci am aussi député yi ku ci amati deux mandats dix ans. da nga dem da ngay dem. Mhm. les directeurs généraux de société wax ma ñu ndaw yi de. Mhm. wax ma ñu ndaw yi directeurs généraux de société xam ne ay plus de cent personnes nga ne kàngam loo fa def dix ans aussi mënoo dem nekk jóge fa nekkaat ministre déedéet PCA. Mm-hmm. président conseil d' administration. si à tous les niveaux quoi. à tous les niveaux ñu xool xool ku defati cinq ans. Mm-hmm. pour que quand mu am renouvellement. borom xam-xam yi bari ni nga ko bëggoon wax. Mm-hmm. bëgg ci yokk leneen aussi. dans la politique il faut que ñu wax aussi ce qu'on appelle la retraite politique am na benn terme bu ma bëgg wax mooy l'IPREP l' institut de prévoyance retraite des politiciens. <laughs> parce que politique nag <laughs> bëgg def parce que am na ce qu'on appelle les dinosaures politiques ñaar ñoo fi am Sénégal du ma tur. ñoo ngi fi de non non non non non doxam loolu. dama ni non non xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw euh, xaaral ñëw. Hmm. dinosaure laa wax. Hmm. ñaar ñoo fi am si dëkk bi actuellement dinosaure mooy ko xam def nga cinquante ans de politique. Hmm. du ma tudd tur. nit ñi dañoo wax réfléchir <laughs> euh, euh, les ogres politiques. les ogres ogres xam ne ñu ngi fi depuis 30 ans aussi. waaw <laughs> <laughs> ah, ñooñu aussi waaw ñooñu ñooñu war nañ préparer seen bagage. Ah. du ma tudd tur. ñu dem mais ñu xam ne liggéey nañ si Abdou Diouf déjà. waaw président Abdou Diouf dans les années 80. waaw ah, ñëwaat ñëwaat ñëwaat fi nekk depuis Senghor. xaaral ma ñëw waxuma Senghor sax sori na. Mm. Senghor bu na Senghor kooku ñooy dinosaures yi la ñooñu mais les ogres. ñi xam ni def nañu si Abdou Diouf 80. ñëw fii ak ñi xam ne njëlbéetu Ablaye Wade ñooñu dama tudd ay tur kilifa yu bari yu fi chef de parti. war nañu dem ñooñu war a dem retraite. ñeneen ñi dem pré retraite. Mhm. waaw loolu il faut ñu waxtaanee ko <laughs> donc c'est l'institution ñu waxe ko. Mhm. bëggoon naa aussi wax leneen sànq mooy que li nga wax la sur les réseaux sociaux. Mhm. man je pour la liberté de la presse. kooku moom moo am. mais même aux États-Unis j'ai remarqué que bi mu amee guerre guerre bi du temps de Bush les organes de presse te leen limité. Mhm. parce que ils sont en mhm. actuellement nag ñun ñu ngi du ma wax ger dafa dur dur dañu situation bu doy war. waaye avec le pétrole ak yooyu. Euh, euh, euh, Cheikh Tidiane. Mhm. pétrole ak gaz. ñi am xam-xam man tey su ma yoroon réew du ma ci sori am na ñoo xam-xam pour gérer loolu. te dafa am aussi ñu ñëw investir si loolu nan wax nit ñi dëgg bi. ya des investissements très lourds très ñoo xam ne ay société mil ñoo ko ñoo ko ñëw indi foore du noonu mm-hmm. nañ wax dëgg bi répartition bi ñu ab xam-xam ñu wax ko ñu def ay comité yoo xam ni neutre commission ñu gere loolu mm-hmm. parce que day dugg ci réew mi ma bëgg a waxaat leneen pour calmer le jeu politique waxoon nga ma sànq gis naa Bassirou Diomaye fay foo mu wax ñu wax Sonko rek ñu ngi ko téye inspecteur principal des impôts domaines moom tamit liggéeyam doon na sooxal réew mi parce que fi muy liggéey ñoo ñooy indi douane impôt. ñu ko daanaka le cadre de son travail ah. waaw non la foofu laa bëgg a waxee. foofu hmm. dafa bëgg a wax moom fi dama bëgg a wax rek toujours li ma wax parfois erreur booy def. pour ñu hmm. éviter ko. voilà moom magistrat yi ak moom fi ñu jàng ñoo bokk ay xarit lañu. Hmm. du noonu mais damay ñëwaat rek si tàggat bi nu waxoon. am matière politique. formation. école du parti foog du parti am na loo xam ne kenn ko wax. Mhm. même en politique nit njiit du wax dafa am ko koy waxal. njiit parfois di nga bëgg a wax dara sax nga seet kenn ci gars yi a benn xale demal wax lii xale bi wax ko wax ñoom loo xam ne ñombe la war ko wax. nga ne ko yow ku la wax loolu lii <laughs> yow yaa <laughs> yaa sab yow sax dina la dàq du noonu kilifa noonu lay doxee mhm. donc ma ñëw sur la liberté la presse mhm. man je pour la liberté la presse mais une presse doit être canalisée aussi. mais foofu laay ñëw. Mhm. dañ fay teg les hommes qu'il faut. à la place qu'il faut. waaw li ñu wax ci politique dafay ñëw foofu tamit ba xam ni le journaliste wax nañu la carte de presse carte de journaliste du noonu. Mhm. yooyu ñu organiser ko ba borom xam-xam di ci wax parce que borom xam-xam yu bari waxuñu euh, politique xam nga politique lan la. Mhm. politique ma ñëwaat foofu. xam nga dans la production de la société. politicien moom day wax rek amul production c'est-à-dire production effective te keroog xaw démb gis naa koo xam ne mi ngi si UNACOIS mu naan politicien jàppale leen ma déedéet politiciens yi léegi li ñuy liggéey am seen outil di fay impôt xam ne si la ñuy dund ñooy ñaan déedéet nan hmm. arrêté hmm. politiciens yi nan arrêté souvent c'est des faux lions c'est des tigres en papier nan ko wax loolu hmm. parce que cet apport cet apport su pré élection présidentielle ñëwee lan mooy xew. Mhm. nit mooy ñëw ni dénk leen ma. Mhm. dëgg la wala dëgg. dëgg la nit ñi dénku na la yow Cheikh Tidiane Kandji euh, vous permettez parfois nga am sa dara ni kaay ma dénk ñëw dénk nit. Mhm. dëgg la wala dëgg nga wóolu ko bu njëkk noonu la doon def gis benn mag ne ko ma dénk la sama yëf. sa xel fi muy ñaawee rek mooy parfois kooku ñëw ne amaatoo amaatoo lu bëggoon ñu ma dénk nga dénkaat ma leneen <laughs> loolu nag da ngay jaaxle xam nga dégg ya dégg nga ko. su ñëwee ni la dénkaat ma xaw <laughs> da nga naan mais kii maa ngi ko warul ñëw laaj ma xa ah, sax dal fii nag sa différent yow yaa ñëw si nit ñi ni dénk leen ma seen yëf hmm. ñu jël seen yëpp denk la ñu jël rek jiital la président de la république ay nit jiital rek doy na doy na ndam la lool doy na say nawle gënoo leen gënoo ci kenn ñu jiital la loolu rek doy na sëkk asamalaat ah, ñu jël sa dund jël ay avion jël ay alal lépp ñu jox la ko hmm. mais loolu ku mu doy lu lay doy. dara du la doy. c'est bien monsieur donc da donc màndu. ma ma terminer ma terminer si lenn non dama ko mhm. terminer si lenn. Mhm. mooy sur la justice. mooy li nga wax ça c'est les réseaux sociaux. Mhm. bëggoon dugal benn kii bu bees. sur les réseaux waaw mooy lan mooy tribunal dañ fay àtte. am na tribunal euh, correctionnel civil. tribunal bi nekk fii pendant longtemps civil bi et commercial la woon. Hmm. mais dañ xëy sende ko def commercial. Hmm. tribunal commercial mi ngi nekk fii cité Kër Góor gi. waaw de la même façon c'est vrai ya euh, y qui traquent quand même euh, y a y a y a des institutions y a l'institution de cybercriminalité mais war il est temps ñu créer parce que fi jamono bi itam. ñu def ce qu'on appelle la e-justice. waaw cest à tribunal mu am benn partie boo xam ne pàcc bu bees kooku maa ngi koy lancé. Hmm. ku ma dégg léegi su xatee fii campagne bi wala plus tard mu am e-tribunal. tribunal bi xam ni. loolu lañ leen di jagleel warut kooku waruñ ko régler biir tribunal. waaw comme ça mu doon loo xam dafay gën a gaawal affaire yi quoi. waaw waratuñu ñëw tribunal. di yóbbu si gestion beeg tribunal euh, correctionnel rek ñu naan kii def na lii ki nga nga sama portable moo ci bind di déedéet dafa war a am loo xam ni fa la jamono ba jëm fa lay jëm i tribunal xam ni dañ leen tàggat de magistrats yoo xam ni dañ leen tàggat sur ces nouveaux nouveaux outils de technique information communication hmm. ak sur les réseaux sociaux ñu maîtriser ko donc ñu lancer message boobu pour jeexal <laughs> pour que dëkk bi ñu ñaan ak aussi fi hmm. ma commencé woon ma dellu siwaat fa hmm. euh, ñu nekk nii na nit ñëpp jóg wax. Mm-hmm. am na temps de latence. Mm-hmm. xaw na akal la bu ndaw mais mais ni ma gisee nii. Mm-hmm. pareegul les camps retra ah, a des camps retranchés les gens ne se parlent pas. y a national c'est vrai avec le président mais ñi ma gisoon keroog si dialogue national bi 80 pour cent ils sont à la retraite. <laughs> te il faut ñu wax ak jeunes yi. ay tigre lañ. non non non li ma wax li ma wax. <laughs> mooy que ay jeunes yi. il faut ñu wax ak jeunes yi jeunes yi si géej gi. ñaata ñoo dee si géej gi. bari na xale yi ragalatuñu. d'accord donc nañ leen jàppale. merci beaucoup dimbali leen ñun ñëpp ay njaboot lañu. merci beaucoup monsieur Mbaye on est on est <laughs> on est on ñoo ngi doon dalal fii kii di Abdoul Aziz Khalifa Abdoul Aziz Mbaye euh, nekk président en tout cas mouvement Futur seen ñoo ngi lay jaajëfal bu baax ñu bàyyi la rek nga wax sa dernier moo internet yi. waaw li may wax rek internet yi euh, mooy que. actuellement dafa may xarale yu bees euh, ñun biñ nekkee xale yi euh, journal moo amoon. Hmm. télévision sax amaguloon après télévision ñëw nekk noir et blanc nekk couleur si la doon gis lépp rajo rajo nekk fi. Hmm. waaw rajo rajo Sénégal après yeneen rajo ñëw fi plus tard ñuy déglu léegi nag xale yi ñoom si seen téléphone portable yi ak seen ordinateur yi si la ñuy xool. li xew si dëkk bi. Hmm. waaw ñuy ñaan aussi ñiy diffuser ñu diffuser jàmm. ñuy ñaan aussi ñi xam ni ñu ngi si réseau sociaux yi ñu internautes yi ñu wax waxu jàmm ñoom aussi ils ont leur rôle. musiba ci internet bi yëpp diaspora bi la. waaw waaw waaw. musiba ci réew bi ci internet bi. waaw yëpp diaspora bi. waaw mais diaspora bi même su amee ñu filtrer. parce que aussi dans la diaspora. kenn mënu leen contrôler. waaw waaw mais nag aussi nañ trouver des formules parce que li am na loo xam ni ay nit ñu koy wax. c'est vrai que Google non dama lay ñëw. parce que ñu mën nañu filtrer am na lu ñëw mais gis nga. Mhm. li nu wax yàq ak saaga. ça n'arrange pas ma soog a. saaga yi ñaaw ci internet bi yëpp ñoom la. non non seulement loolu la mais ren parfois ñu manipuler image. te loolu baaxul. Mhm. donc na nit ñi def attention. dëgg la parce que. man na mën na def le tri. non li am dafa dañ koy gis. Hmm. ñu ne benn benn bouche d'incendie bu ndaw départ de feu. Europe ak fu nekk su fa muy départ ak li mu yàq des hectares et des hectares. Hmm. kenn xam nu mu toll. dëgg la te dëkk bi nag. Hmm. Euh, soxla ma ma ma jaaxle foofu c'est un pays qui s'est construit sur les solidarités. c'est ça. ay nit yàlla ñoo fi ñëw nekk y avait la tradition. ñoo ñu pacifier dëkk bi. des hommes politiques responsable continuer pacifier dëkk bi. su amee maintenant des acteurs nouveaux di bëgg a yàq ñu wax ñu wax ak ñoom ñu wax leen arrêté stop stop stop mm-hmm. te jàmm jàmm ak salaam mm-hmm. mooy actuellement la ñu soxla te yàlla leen yàlla may jàmm ak salaam amiin merci beaucoup mbokku internet yi ñoo ngi leen di jaajafal ci taamu bi nga xam ne da ngeen koy taamu Sénégal chaque jour di en tout cas gërëm bu baax sëñ bi di Khalifa Abdoul Aziz mbay nekk consultant et administrateur de société ñun de bëgg nañu quitter ci ci presse bi xanaa <laughs> ni ngeen xool ni ngeen ñu recruter rek incha allah rabbi mu nekk université en Europe sur plusieurs dans beaucoup d'universités euh, mu nekk tamit en tout cas euh, benn borom xam-xam boo xam ne xam-xamam màcc na dem ci wàllum politique ak économie euh, sëñ bi bay ñoo ngi lay jaajëfal di leen dig daje ba benn yoon incha allah rabbi fii ci Sénégal avec un autre invité jër ngeen jëf.